Bienvenue sur Salam Vision. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa xabibina wa shafiina wa mawlana muhammadin ibnu abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu an cheikh tijani allazi shaa tariqatahu bayna albariyati burhan baaxi wa baadu salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu jaami àdduna ak jaami alaxira ñaan yàlla borom bi subhanahu wa mu def ñu dégg-dégg ñu suñuy bàkkaar xéer ci lu baax te musul ñu ci li xam ne gërëmu ko ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp ziyaare ñëpp santaat yàlla bu baax a baax a baax baax a baax ci wér gi ñu may ak kàttan ak xel ak xalaat mu ñu mën a dellusiwaat fii ànd ak yéen seen émission bi di al ilm wa taalim fii ci Salam Vision ñu sant ci yàlla bu baax a baax waaye julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaanal yàlla suñu kilifa yi diine yàlla yàlla gën a guddal seen fan di nuyu di ziara Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides nuyu Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes ak mboolem xalifa yoo xam ne ñoo ci kaw suuf. di leen ziyaara di leen ñaan yàlla yal na yàlla doon leen dëgëral yal na yàlla doon leen taxawu bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn moo xam fa tabarakallahu ñu njiitu réew mi ak fa tabarakallahu ñu ko soxlaat yàlla joxagu leen ko ñoom ñëpp ñoo ngi leen di leen ziyaara di masawu coono rek fa tabarakallahu waaye di ko ñaanal rek yal na yàlla génne ko ci tiis wi. tabarakallahu di Ousmane Sonko dëgg yàlla jullit la comme jaamu yàlla la comme ñun dañuy wax ni jullit naxaar nattu waaye góor tuuma tabarakallahu am nag amul yàlla rek moo xam waaye tuuma fii nañ ko yàlla fekk waaye tamit nit juut tamit fii nañ waaye fa tabarakallahu ni ñaanal ko rek yàlla yàlla jëlee ko ci ndax wala bi shay'in min al-khawfi wa juu'i min amwaali wa anfusi wa samaraat wa bashiri saabiriina allazina iza asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un yàlla ñu bëgg rek lay teg natt kon natt bi ko yàlla teg bu ko muñee yàlla dañ ko ko teggil jox ko li gën lool fa tabarakallahu natt la nag tabarakallahu bu dee tuuma tamit yàlla dina ko teggi insha allah rabbi defal ko li gën loolu ndax seydna seydna Aïcha di soxna rasulullahi keroog bi ñu ñëwee nii da doon jàll alxuraan daf ko setal waaye ñun léegi alxuraan ñu ñoo setal kuñ ko fi jiiñ moom daanaka yow ma xiyaam rek ngay sete waaye du fi waaye seen naa Aysa inna allazina jaa'u bil ifki usbatan laa tahsabuhu sharran lakum bal huwa xayrun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba wallazi tawalla minhum wa lahu 'adhabun 'azim kon. wa tabarakallahu yàlla na yàlla teggi ko nattu bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njuumte tamit mën naa am ndax yàlla moo xam wala aalam keroog seydina yusufa di ko Zulayxa tegee loxo bu yàlla intervenir woon mu àgg ci kaw ndax wala qad bihi wa hamma biha lawlaa an ra'a rabbi kon nga xam ni kon fa tabarakallahu yàlla rek moo muccal jàmm yal nañu mu muccal ni ko suñu sëriñ la waxee si Abdul Ahad jàmbaar amul yaafus amul ku yàlla dimbale rek moo fi kenn ku ne yaa ngi rëy làmmiñ di ci wax te li ngay wax dara nga ci xamul yàlla rek xam nit nag boo xamul aslu bu ci bu ci sore boo xamul aslu bu ci wax nañu bàyyi rek yàlla muy leeral yàlla yàlla leeral lépp duñ kii moo tooñ duñ kii tooñu. yàlla rek moo xam te yàlla tamit koo bëgg lay teg natt koo bëgg rek lay teg natt yàlla yàlla jëlee ko ci yàlla yàlla jëlee ci jëlee ci mbooleem koo xam yàlla teg na natt ndax natt nekkul ci jigéen tuumaal rek feebar am na ci sa àll réer am na ci sa àll yàqu am na ci nga jur deemu doom am na ci waa yàlla muy teggi yàlla yàlla teggi leen di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu war a delluwaat suñu xel ci yàlla rek xam yàlla rek moo fi nekk ku du yàlla ne moo bare na nag ñoo xam ne ñoo ngi wax jàpp ne ñoo ngi koy dimbale fekk ne ñoo ngi koy lor waaw mbir da war a xam noo cay waxe surtout boo waxee koo xam ne kàttanu yàlla la yor waaw tey mu neex ñu mu naq duñ tey Macky Sall président de la République di ko keneen kon booy jéem a insi wax yenn yi ci moom jëmale te yaakaar naa yaa ngi gën a poussé ngir mu sànq ñu nit bu ko yàlla may doole da nga xam nooy demee moom ndax yàlla moo xool ñëpp. jël ko teg ko suñu kanam mu neex ni mu naqari ko moo tax mu neex mu naqari ko bis dina ñëw borom subhaanahu wa taala dañ ko fi jëlee ana Namrud ana Kanaan ana Firawna ana Amama ana Bush ñoom ñëpp dem nañ kon moom mii du fi sax kon moom mii du fi sax kon ñi nga xam ne ñoo ci nekk di wax nañu xoolal bu baax a baax li ñuy wax surtout les politiciens yi ciy profité politiciens yi ciy profité xam ne ñoom gën nañ leen dégg kenn xamu leen. si coow Sonko bi ñu profité waale ci nit ñi pour ñu teg leen te li ñuy wax dara la ci gëmul waaw li ñuy wax dara dara dara la ci gëmul lu dul ngir sànq gis nañ fi ñoo xam ne asa an tuhibbu shay'an fa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum bari li muy def nga jàpp ne intérêt nit ki tax mu koy fekk na intérêt boppam moo tax mu koy def waaye dafa ko ngir intérêt boppam mais intérêt la ciy calculer ngir bu génnee nit ñi xam ne génn na mu mën a wax mu am ci buzz loolu ça n'a rien à kon nit ki boo koy jàppale war nga ko mën a jàppale ci li nga xam ne moo koy jëriñ waaye doo ko jàppale ci li nga xam ne moo koy lor ñu baal ñu ñu baal ñu àq nag xam ne dañu am wàll ci réew mi te bu tàkk ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye réew bu sedd ñun ñoo ko bokk kon dañuy yàlla rek yàlla yàlla jàmm ci réew mi bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa nit da ngay moytu fitna yàlla bëggul fitna al fitnatu naimun laana allahu man ay xasaha yaa ngi saa saa nee na fitna ngi nelaw yàlla rëbb na ko koy yee kon fa tabaarakallaahu ci profité buñ ci profité di wut visibilité di ci wut buzz bëgg ku ñu bëgg bëgg ñu fan wala ngeen xool seen interpersonnel wala mera mag saara bëgg mu jël bëgg mu wala nga profité wàll ci ni ngay waxal ni jàppale ko Sonko gëmoo ci dara dara dara dara dara dara dara loolu si interpersonnel te nit nag boo koy jàppale da nga koy jàppale te rek rek yàlla yàlla jëlee yàlla yàlla jëlee ko ci nattu nit xam ne jullit moom naxaar natt waaye gor naxaar tuuma gor naxaar tuuma waaye jullit naxaar natt kon fa tabarakallahu ñu ngi seen émission bi di al ilm taalim fii di Salam Vision ngeen ànd ko seen xarit seen soppe al oustaz Ibrahima Diarra fii ci yenn chaîne YouTube bu mag bi nekk ci Bali bi tey ñu ngi toll ci seen bind bi mooy wala yarda li nafsihi allazina wa yaqtadi bil mutabiina di sunnatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ni booy topp toppal ki nga xam ne moo teg tànkam ci yoonu siraatal mustaqim booy topp toppal ki nga xam ne moo topp sunnay rasulullah waaye booy toppal toppal koo xam ne yàlla gërëm na ko ndax li yàlla gërëmee mooy fii yàlla wax doomu aadama mu jaar mu jaar waaye topp koo xam ni xam bi mën na bare teew ko mu doon saay-saay mën na bare teew ko mu doon saay-saay ndax bare na borom xam-xam yoo xam ne bu doon na borom alal yoo xam ne ay saay-saay lañu seen nafsu mooy dem ba mooy gañe seeni roox ñu jàppale ñoom ci yàlla fekk na nekkuñ ci yàlla bala naa tey sëriñ si ñu fiy gis ay gars yi dinañ topp tey ñoom ñëpp bañ génnee diine ji yàgg parce que dañu def pacte ak jinne te jinne yi ku def ak ñoom yaakaar naa ni te jinne yi gëmul yàlla boo def ñoom pacte yaakaar naa ni foofu génn génn gi ci diine yi léegi nag da ngeen mën nga mubboo lislaam ku la gis jàpp na lislaam la ñor fekk na lislaam ñor la ki lislaam ñor ki la yàlla boole sax doon nangu sa ose naan diw sama tànk waaw waaw diw sama taalibe lu garaaw la waaw diw sama taalibe si daal jumaa nee sama sëriñ la nga nangul ko ko ni ko wax sa sëriñ la alaaji maa nee na fa taalimu fardun nee na nga jàngal ka faratal ci yow soo ko mënta boo ko mën a jàngal nee na nga fay ñu koy jàngal faratal ci yow waaye diw sama taalibe rek diw sama taalibe rek xamoo farata njàppam xamoo farata sunnam xamoo sunnay njàppam xamoo ngëneelu njàppam xamoo mustaxaabatu njàppam xamoo dara ci yoonu yàlla loolu bu ñëwee nga liggéeyloo ko yónni ko addiya mu la jaabante daw fii indi fii nga koy sanq bu yow ma xiyaamate kenn ku ne dina poñe sa morom ni ko ndax xoo mu lii mu ne ko yaa ñàkkoon fayda ba topp ma ci àdduna waaye xam nga ne li ma nekkoon woon waaw law àndal naa karatan ni ko alxuraan waxee rek nga xam ne ñuy poñante waaw war taqataan bi asbaab nee ñu tàgg seen ñu tàgg seen li ñu amul seen diggante ak ñoom ndax parce que lu tax que fi ñu leen doon fi ñu leen fi ñu leen doon wax naan foofu la ndeket du foofu waaw maanaam mu ne allazina yadulluna a taatallahi nee na ki ngay topp ki nga xam ne ma topp seen ci yoonu sunnas Muhammad mooy ko teg tànkam ci yoonu yàlla waaw yadulluna ma ngi lay tegtal ala taatallahi ci nga topp yàlla toppal yàlla jaamul yàlla yàlla moo fi nekk day ak suñu kanam boo jaamul yàlla perte nga fonkal say waajur fonkal say dëkkandoo fonkal ñi la mag fa respecté ñi nga ñi nga gën a suufe comme ni ko Seydina Mohamed mujjee dénkaane ci mujjub dundam si am siraj maa jàngal ñu ko lan la mujjee dénkaane mu ne lan inna salaata wa mamluka wa mamluka la axiru ma awsa bihi Mustafa fi xaalati alami de mujjee dénkaane mooy respecté waxtu julli ci loolu te ñu ngeen ëpp leen respecté leen waxtu julli juróom te ñu ngeen ëpp doole yërëm leen leen kon kon nit ki allazina yaduluna ala taatallahi waaye yow tamit nga ni yaa ngi nga yaa ngi woote yoonu sunnas Muhammad yaa ngi woote yoonu yàlla di di di fexe yow di jëm ci kaw ñi nga nekkal jëm ci suuf yow sa bopp yaa war a ñàkk ñi nga nekkal di am waaye yow war a def ñi nga nekkal di ñàkk yow ngay am waaw mu ne allazina mooy ka xam ne yaduluna dara tegtaloo ala ci topp yàlla wa yaxasiruna mu lay wattandikuloo mu itibaa cheytaan ci nga topp cheytaan nee na ki la yàlla booleel ci yoonu yàlla nga jël ko muy sa wasila alquran moo ne wabtaxul wasila wa jahidu fi sabilillahi wut leen ki leen toog ci yoonu yàlla ki nga nga jël la teg nga ci yoonu yàlla kooku da lay moytuloo cheytaane da lay moytuloo def lu bon da lay wax lu bon da lay moytuloo fen da lay moytuloo jëw da lay moytuloo dem ci dem ci soirée da lay moytuloo dem ci tànnbéeri da lay moytuloo dem ci fóorali da lay moytuloo dem ci làmb ja lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko waaye léegi yaakaar naa sëriñ si fi nekk ñoom léegi yaakaar naa ñoom sax gën a daganal léegi làmb ji boo xoolee seen taalibe dafay sonn ci ñoom di sonn ci ñoom gàmmu jot wala dara jot taalibe bi ñëw mbër mi ñëw mbër mi la ñuy bàyyi mu dugg su mbër mi duggee ñu recevoir ko ndek mel ni ñoo ngi influencé nit mbër mi lu muy def loolu lu baax la taalibe bi nga xam ne dafa sonn ci ñoom ngir gis ko sax problème lay doon kon sëriñ sëriñ soosu noonu du sëriñ sëpp nag mais am na ñuy woote sëriñ noonu la ñuy doxee kon kooku du sëriñ sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg teg tànkam da ngay ko maam borom Tuubaa defee woon keroog bi ko waa ji seesee ni ko mbër laa daan naa ñëpp kenn laa bëgg a dajal pour daan ko maam borom Tuubaa dafa jàpp ci loxo jàpp ci loxo dem ba ci armée ni ko gis ngi mbër mu daan nee ñëpp ba ñu tëdd kii mën na koo daan kooku moom mooy borom subhaanahu wa taala dama la ko jaamu ji yàlla kooku yee yee na ko yedd ko waar ba sawaay delluwaat ci yoonu yàlla waaye léegi ñi xam tey ñoom la nekk ci affaire seetaan muy musiciens yi muy waykatu musique boole góor yi góor yi jigéen ñi ñuy làmb doog di làmbi soow wala mbër yi ku ci dem tey nga daje ak ñoom foo mën a daje moom ci kër moom la ñuy recevoir dem teg la ci biir ñoom loolu lu ñuy def moo gën a baax yow li ngay def yow mu mel ni ko ñoom ñoo gën a influencé yow bi nga xam tey bu la musicien bi seet tey wala mbër mi tey ñëw nga ne ko eh bàyyi li nga nekkee bàyyi li ngay def yaa ngi caaxaankat dégg sa kanam di caaxaan dong la lépp coo ci am lu xaram la waaye ñoom ñoo fi influence léegi mbëri mbëri yóbbuwaatu mag musiciens yooyu yóbbuwaatu mag xoolal xaalis boobu noonu fa tabarakallahu moo tax mu ne way xasiruuna mu wattandiku loola min itibaaci cheytaani ci nga topp cheytaan mu ne walaa yardaa bul gërëm nag li nafsi sa bopp maa ña nga xam ne radiyahu gërëm woon nañ seen bopp moof li sunu ñun saisir lañu bu ne si jàkk ji mukk du du tisbaar takkusaan timis jot nga ba jàpp ne yaa gën ñëpp boobu nelaw nga bul jàpp mukk yaa ngi woor rek di woor lundi mardi mercredi jeudi vendredi ma tëral ko samedi dimanche ma woor weer bi yëpp maa ngi koy woor taxul bul jàpp ne yaa gën ñëpp bu ko ngand ngandaloo bul jël tam si sa alal di ko may doomu aadama ba jàpp ne foo toog yaa gën ñëpp nanga sa bopp xadara nga dem wasifa nga def laazim nga def foo toog jàpp na yaa gën ñëpp jàppal ne yaa gën bon ñëpp ndax feebar bi gën a bon ci di doomu aadama moom moo ne ci yow muy feebaru xol fépp yaa ngi jàpp ne yaa gën ñëpp di gërëm sa bopp di naw sa bopp ci ngay def rek nee na boo perte nga la nga def moo tax mu mu ne di naf si sa bopp maa ñi nga xam raddiyahu gërëm moo ne seen bopp mu fi ñu ñu saisir lañ mu ne allazina mooy ñi nga xam ne daa at perte nañ amaalum seen ñoom fii raa taatalaay suñu topp yàlla mooy li ma wax léegi-léegi ñi nga xam ne perte nañ seen jëf yow yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi dem mag yaa ngi joxe asaka yaa ngi may di wax lu bon ku ko bonam ko yàlla yàlla jëlee ko ci waaye waroo toog foo toog di wax ci moom bon bu yowal xamate daanu cibb jox ko cibb ay la waaw mu ne fa ay xasaratuhum wa yaatul bukaa'ihim na di nga jooy ni perte naa ñu la ndax nga ni perte ndax nga jooy ñu ne parce que li nga xam waroo sa woon sànq yaa ngi doon julli dëgg joxe asaka dëgg yaa ngi doon dem màgg dëgg la yaa ngi doon may dëgg la waaye boo paree nag yaa ngi yàq sa jëf ndax yaa ngi tudd ko waru tudd yaa ngi ŋaññ ko warul ŋañ boo kon nag loolu moo la perte loo tey moo tax mu ne allazina gaa ña xam daa ak sànk nañu amaarum seen jëf fiihaa taat lay su topp yàlla fee xasatuhum woo naa seen perte wayaatul bukaayim ak seen yàgg jooy yowmal xiyaamal keroog bis pénc nas alu ñoo ngay laaj yàlla subhanahu tudd naa sële suñu buur bi an yow naa ba mu dëpp lañu li itibaa sunnatu nabii naa topp sunnay rasulullahi wa shafiina kañuy ramu wa saydina kay suñu sang muhammadul muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla doolu xéewal yal na yàlla doolu lu mucc yàlla dafa ñu jàmm ànd ak jàmm alaxira bi jaayi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen woon fii tey seen émission bi al ilm wa taalim di xam ak xam ne ànd ak oustaz Ibrahima Diarra fii ci Salam Vision seen youtube mag bi nekk ci banlieue di nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag sama sëriñ di ko sant rek li ko yàq rek mooy sant bi ndax Diop la sant Abu maa ngi nuyu Abu bu baax a baax a baax ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi jullee ci juma Seydou Nour Tall bi di nuyu imaam Kébé imaam Diallo fa tabarakallah imaam Tamsir bàyyiwuma benn imaam gis naa ñaani ñaani yegg si yàlla yàlla déggal leen du ma fàtte sama sëriñ nag sëriñ Njaajo Bousso nekk ba Kër Massar di doom ci maman aada waaye di doom ci maam bu Bousso waaye di cët ci maam Thierno Bousso. waaye damay di sët ci ki nga xam ne fa tabaarakallaahu mooy maam Diarra Bousso di nuyu doomam jooju di maam Thierno tuddee mu tuddee ko Baye di sëriñam maam Thierno maa ngi lay nuyu baax a baax nekk ba Mbàkke waaye du ma fàtte Kumba Suuna sama jarbaatu xool sama jarbaatu bopp maa ngi lay bu baax a baax a baax du ma fàtte Garas fa tabaarakallaahu nekk bi Itaali ànd ko dabañam ak mboolem ñi nekk Itaali yëpp ñoo ngi lay nuyu du ma fàtte Sooda Cheikh Babacar Diarra tabaarakallaahu ñaareel xaritu jëkkër ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a du ma fàtte nag sama yaay bopp Fallé Ndiaye nekk ba dagal soxna sama soxna su baax soosu kenn du yow kenn du yow kenn du yow yal na yàlla defal la jàmm soxna yal na yàlla defal la jàmm joyeux anniversaire happy birthday to you longue vie bonheur santé xam li nga bëgg yal na ko yàlla defal yal na nga dund dund dund dund dund ba Mansour yóbbu la màgg atta yóbbu la màgg nday jare yóbbu la màgg bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax nga suñu yaay tirimul tax nga suñu yaay feebarul tax nga suñu yaay saltewul tax nga allah macha allah suñu làmmiñ bi yàlla mu doon teg ci yow suñu bi yàlla mu doon teg ci yow ñoo ngi nuyu fa tabarakallahu wala mata jaay nuyu fa tabarakallahu sax di boor nuyu meer buri nuyu nag waa daayal mujahidina fi fi asari abayi wal ajdaadi duma fàtt tamit jeunesse tijaan fa tabarakallahu nuyu naa ñëpp ziyaare ñëpp baalu àq ñëpp ñaanal ñëpp jaam duma daana nag te nuyu ma ki nga xam ne mooy réaliser émission bi di soxna Zeyna maa yal na yàlla gën a sa yal na ko di ak mboolem ñu fiy liggéey ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.